Bienvenue sur ti jàmbatoo ndax billaahi yaa bari ngor si se sëriñ Babacar laay maam sëriñ Babacar tus leen te bàkku ko bilam te tesbit moo di mi ko jar minal basiitin madidin kaamilil amalin wa waafirin rajasin bandi tamaaki sabar bu muy kaman ja bu muy mexdaf bu muy trompette oo bu muy gitaar te bu muy fanfar ahousubillahi min alcheytan irajim bismillahi irrahmani irrahim wasalatu wasalaamu ala sayidi almoursalin sayidina mohammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi al ghurri al muhajjalin eh, nu ngi nuyu eh, mbooleem ñi nga xam ni jamono bii tembe ñi ngi ñuy seetaan ci suñu site bu mag bile di MPROD TV eh, ñëw bi nag du ñëw émission du ñëw daje ñëw ziar mbokk taalibe la Eh, siise mi mm, bokk Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam bokk itam Seydil Xaaju Malik radiallahu anhu bokk Serigne Babacar Sy radiallahu anhu bokk Cheikh Seyd Mouhamadul <clears throat> radiallahu anhu bokk Serigne Mam Malik bokkit Serigne Habib mi nga xam ni eh, bi Serigne Mansour borom daara ji eh, Serigne Habib la séddee woon Serigne Mam Malik moo nekkoon léppam bi sëñ Maam Malick di jóge Sénégal di dem ker di jàngi Serigne Habib moom la tàggu Serigne Habib moo togg moo tàggu baayam Cheikh Seydi Mouhamadul eh, kon nag bu yàlla wanalee nu bokk ay nu bokk ñu ñu bëgg bëgg bokk fu nu jëm yàlla dogal nu seet si ko taxawaayam itam nu rafetlu ko eh, eh, muy borom ijaaba si Seydi borom qabuul di jàmbaar <clears throat> di eh, koo xam ni boo ko seetsee ci li ko yàlla dénk eh, te mooy eh, ku ñëw mu faj sa aajo ci li ko yàlla dénk ci barki Serigne Babacar Sy di ci jàmbaar di ci bay waaram ku ñëw di nga dellu si ndax li mu yor wa ma shahidna illa ma alimna wa ma kunna lil ghayri lil ghaybi xaafidin booy seede da ngay seede da ngay seede li nga xam Eh, ni koy waxee wala taktumu shahadata waaw fa man yaktumaa fa innahu aasimun qalbuhu eh, bu leen nëbb seede parce que ku gis loo war a seede boo ko seedewul dangay ngay nekk da ngay nekk hypocrite tabaarakallaahu noonu nag loolu la ñu xam ci moom muy jàmbaar di boroom ijaaba teg ko ci yoon doon ne ko ci ay juróom ak i maamam ak i baayam parce que nit di nga ko gis ci internet ñu naan diw mu diw diw mu diw diw mu diw te doo xam la mu am fa mu jaar waaye moom eh, jaar na ci daara jàng li mu war a jàng jàng li doomu soxna yépp di jàng alaaji dégg bi mu fi jógee itam yàlla may ko ci lii mu ci góorgóorlu ci bay waaram eh, te yàlla kese tax nu ñaan yàlla yàlla yokk ijaaba bi yokk xabul bi ci daraja yenent bi alayhi salaatu wasalaam alxaj Alaaji Saam li nga nuyoo am na solo li nga ubbee am na solo lool ci nga xamante ni mooy sëñ Cissé mu sëñ Babacar si bu génnee ci internet bi li muy njëkk tàmbalee mooy sant sëñ Babacar si waaye sargal sëñ Babacar si wane ne lépp lu am rek du kenn ku dul sëñ Babacar Sy sëñ Cissé. <coughs> xaaj dégg dañuy santaat yàlla julli ci sang-sang yi muy Seydunaa Muhammad di siyaare ñëpp di baal wàq ñëpp di baal àqit ñëpp. tey nag danoo am kontante kontante mooy ne xëy yeewu am surprise bu toll nii rëy na ci ñun lool ndax man amuma kudul sëriñ kër Si mënumaa amit lu ko ëpp ma xëy lenn ci ay soppeem wàcc ci sunu ëtt dañuy bëgg am contentement di wax xaaj saab ne ko lii rëy na ci ñun waaye nag li nu bokk moo foor lool comme ni mu ko waxee ci sëriñ Habib ba ci sëriñ maam maalik si ba ci seen wéyjur sëriñ Mansour borom daara ji ba ci seen jur ñoom sëñ Mansour muy sëriñ kër si li xanu boole xaaj saam nag di nit ku baax nit koo xam ne saa su solee dàllam lenn na ko tax a jóg Seydunaa Muhammad kër Cheikh Seydi Hadj Malick kon bu solee dàllam ñëw ci sunu ëtt dañuy bég rek di sant foofu rek la ñu yemale kàddu gi amul lenn luñ ciy wax tey lu dul loola na ko mbir mi moom tey mbirama mbirama tey mbirama xaaj dégg tey moom wax ji loolu rek la du leneen. waaye tey boo doon déglu ki nga xamante ni mooy alaaj Saam. waaw xam nga Saam borom bi daa dogal muy chargeur universel. moom loolu la borom bi dogal ci jëmmam ji chargeur universel la. moom noo ñëwee rek moom day dem. comme chargeur iniversaire boobu mu doon nag si laa koy ba. xalifatu cheikhi wal muxtaariya fi di mbër. yow yaay fajal diinay daanam te ñépp la war Sëriñ Babacar Si xalifatu cheikhi wal muxtaar yaay sunu mbër yow yaay fajal diinay daanam te ñépp la war yaa man yaru mu xinat daaray ni doon na gaawal te jokku ca mbay may yaa nga xasar sëriñ Babacar jawoo nga neel te suloo yaakaari ku la gëm te ku la roy roy na asxaaba rasul ci lu sëriñ Babacar Si yaa waarisal xutbi ak maamam te wuutu sa baay cheikhul machaayixi fi lislaami duuna faxar sëriñ Babacar Si sëriñ Babacar Si bi yëq te doo te weral ku roy ci maam mbay di nga raw yawmal xiyaamati doo dégg riiru saxar si di faagay demba mi ki jawaar maam sëñ Babacar yaa yen bi te woon ko sakku la aw ah sëñ Babacar sëñ jëmmi mbay sëñ làqu na tey si se sëñ Babacar waaye cër ba génn fa tey tey la waalo sax gën a aaye wóor na waati waawal mbay siise ñépp way na mbay ci meloom dellu sant mbay ci jikkoom kenn desul do rakk du doome yaay mbërum ti waawan mbay ana ñi bëgg sëñ fas gi mbay si yor ci loxoome xayru xalqilaa ya ko moom jox ko mbay mu seere ci moome ak palam ti waawan mbay Maodo seng féeru fa ñoom ti waawan xalifa nga féeru fi ñoom kon yow mi mar banaan ci fi mbay waaw dooto geek ci waawan mbay si se sëñ Babacar faju aajo gaaw na fa mbay faju aajo gaaw fa mbay tis wu dàqu gaaw na ca mbay laaj ko siise sëñ Babacar mi daan dikkal ci waawan mbay ana ñu bëgg sëñ Babacar faju aajo gaaw na fa mbay tis wu daaqu gaaw na ca mbay laaj ko gaaya daan dikke ci biir ci waawan mbay siise ceerum woote day sama ndaay ay waay ceerum woote day sama ndaay cik misaal tëfal gi daay tëf tëfam du yàgg mu fay maam dalul mbay ti waawan mbay sëñ Babacar talu nganj mooy ti bukaay taalu nganj mooy tibbukaay taalu nganj mooy tibbukaay siise taalu nganj mooy tibbukaay hoo sëñ Babacar taalu nganj mooy tibbukaay dégg goo tibbal ma ca daay talu ngañ boy na kër sëñ Babacar a dootul fay ti waawan bay ku sëñ di mbay di sawaay nga dénk koy cummikaay siise moom nga dénk say cummikaay sëñ Babacar moom nga dénk say cummikaay moom nga dénk say cummikaay moo la defar moo la téyel say cummikaay sëñ Babacar Si moo la téyel say cummikaay ku say dimbay di sawaay nga dénk koy cummikaay loo di ragal ak tiitoo sabañ yalay xeelooy mbay ti jàmbatoo ndax mi mi billaahi yaa bari ngor si se sëriñ wayal maam sëriñ Babacar tuslente bàkku ko bi lamdaay moo koyoo dan sa ngi te tesbit moo di jar minal basiitin madiidin kaamilil amalin wa waafirin rajasin bañ sabar